daw xanaa sànq. waaw kii day sama seexandoor ñoo màggandoo ñoo bokk ndey suñuy maam la woon dém ak suñuy ndey te dama wax ni buur buurum làmb la mosoo ma gis ma mel ni ci làmb waaye nag day sama lépp nag may géwalu juddoo dugal ko ci làmb man ak jibi sam ñoo ko njëkk takkaloo sër ca école 10 ca digganteem Odinga wax naa digganteem ak Pape Mor wax naa digganteem ak Mbisaan wax naa digganteem ak l'enfant wax naa digganteem ak Tapha 3 wax naa digganteem ak guy gi wax naa dama yàgg ak moom kon buy bëre nii rek laa mën a mu nekk xale boo xam ne fitam ak jomam ak fulaam ak faydaam. Zarko kuy góor ëpp loo ko fit ëpp loo ko jom ma ni mu xam nañ ci dara borom fit wu la boo xam ne il n'a jamais reculé devant rien du tout te ci kanam xale bi bi bëreel tey. xale bu mën a bëri la doomi xaalisu bëri xaalisu làmb lañ ko ngéntee ci la duggee école ci lañ daan jëndee ay yërëm ci lañ ko yar xam na diggante xaaw xam na laar xam na suul xam na sulli xam na sangu xam na teg xam na tekki waaye xale la boo xam ne tey dama wax ni combat bu neex Fall la ñu duru tey que le meilleur gagne rek àdduna amul solo. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. loolay kaddu yi nga xam ne si ni buur géwal moo ngi koy wax muy kaddu yi am solo maa ngi lay nuyu. na soow ma mel nii mu ngi si jàmm. ñëpp a ngi si jàmm bu baax am ngeen bis de. waaw barke alxuraan borom dëkk bi bu baax bi. am ngeen bis de. waaw dañu ñaan yàlla jéen may ko ndam. bilaay walaay ak mbëru Medina yëpp ñoom bébé jéen Serigne Ndiaye 2 ma ñu kay la ñëpp bilaay. coow coow li coow li nu mu demee noonu diggante bébé jéen ak booy faasi lan la. waaw man déclaration am rek na ma yeewu tey ñu wax ma ko mais Ndakaaru benn bilaa wala nap nice nee ko Ndakaaru kaasu ko fe la bi barkeelu mais wan ngeen ni moytu coow loolu ndax Ndakaaru benn bopp la xale yi la loolu bu dee ñun kase ñun ñooy far ñun ñooy defalante mooy li ma nañu woo magu ñu génn wa jeunesse bi mbëri tamit génn kanaa sa booyee ndax xam nga mën naa Fass benn la ak Gueule Tapée ñii supporté ñooy supporté Bébé loolu kase mais bu fekkee dafa am loo xam ne gàllankoor la si Bébé Diène dañ koy marché bu baax a baax a baax parce que dégg nañ ko quoi mais moom borom baax la aada borom baax la. yaakaar naa ne Bébé Diène ak aada ay doomu ndey lañ ñoo bokk Medina ñoo bokk Ndakaaru mais am na yoon yoo xam si ni booy am rek magu Ndakaaru yi dañoo war a génn. mooy la ma wax magu Ndakaaru yi ku si mel ne suñu père dafa gay père Kayre père président face bi ñëpp war a génn xam nga wax a booy ndaw yi parce que jeunesse bi la rek mais bu dee mëri. mais aada am na fi am na fi Thiès Bébé Diène ko ba Mbour taxawaay boobu maa ngi fa mu ñëw ba Mbour soutien soutenir ko mais ñoom ñaar benn la amuñ benn problème billaay wallaay kii mooy baxaaw borom waaw moom waaw di la nuyu di la sant di la wax sànq lu am solo nga wax jeunesse bee xamul lek mais ñun ñu ñuy di dugg fépp xam nañ lépp foofu noonu amul xaaj amul seen ñoom ñaar ñëpp ay doom day lañ te dañuy ñaan ànd boobu gën a sax waaw jeunesse bi comme sama genre yi man sama morom ñoo xamul mais mag yi xam nañ wala dëkkandoo yi tamit xam nañ. jaajëf maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. maman bi sa doom toog nii nga toog ci wetam nii lan nga yëg ci làmb. waaw c'est un moment très fort rek xam nga loo xam ne da ko def ba pare sa njaboot ñëw wuutu la ci nga xam ne yow daan nga am bés yu toll nii donc yëg-yëg boobu laay am yàgg naa am bés yu nii yëg boobu yëg rek laa am. lan nga koy digal ci diggante moom ak waaw li ñu war yëpp def wax nañ ko entre entraîné nañu physique nañu contact nañu le morale est au bon fixe li ko war li ko digal aussi mooy que adversaire la il faut le respecter te Zarko moo ko jiitu ci làmb ñun xam nañ loolu mais ce qui l'essentiel daal moom li na ci xelam muy yéen. yal na yàlla mottali yéene bi mais tey bëgg naa am lu mu allah bu àndee ak ndogalu yàlla. jërëjëf merci beaucoup. jógee nii lii li may fàttali bari na ci làmb xale baa ngi damm loos wi mu ngi damm loos wi di defar loos wi laa ilaaha illallaah mu ngi defar loos wi defar baat bi ndax mu mën a siggee ka siggi ah laa ilaaha illallaah cey làmb cey làmb bis la bisu mag. maa ngi lay. sëñ Fallou rek. bis bi sëñ Fallou rek. ah sëñ Fallou rek bis bi. sëñ Fallou oh, sëñ Fallou rek. sëñ Fallou rek. ah sëñ Fallou rek. amiin waay. incha allah. mais xale bi. waa kii moom champion la. kii fi mu ne pare nañ bu yàgg amul dara loo koy digal ci làmb def na mën na bëre yàlla def na. lépp loo soxla ci mbër mi ngi mi ngi ci Laurent loo soxla ci mbër mi ngi ci Laurent Ndiago Laurent tey boo ko doon wax leen dong nga koy sant boo wutul doole kese amul leneen loo koy sant bu dee bëree bi ma nga fa bu dee xeex bi ma nga fa ki bëre kooku nag moom dafa moo dëpp làmb Moustapha Gueye champion la lépp li nga xam ne mbër da koy def ci làmb dafa def na dafa bu bàkkoo mu neex bu bëree mu neex te mbëru amateur la euh, fierté la ñu am vraiment bëre ak moom parce que tey bu ko neexoon mu ni Laurent 3 combats 4 combats mbër yooyu ak ñoom mais daf leen tendre la perche te grand contre petit bii mbër yi xewal léegi man daf maa neex boo demee tey Bombardier mu wàcc jël doomam wala sëtam wala jarbaatam bëre ak moom loolu dafa neex nga dem si Eumeu Sène mu wàcc jël rakkam bëre ak moom loolu la ñuy xaar ci làmb mais VIP yi waruñu nekk rek 4 personnes 5 personnes di lekk millions yi bàyyi seen rakk. du yoon jaaduwul yoon ci ko ngor nangoo sax diiru ko nangu. mais mais Balla Gaye kuy tëgg combat bu dee combat rek nga bëgg combat boobu mooy combat bi Siteu def na lu mu war a def ci làmb Balla mooy yoonam ñoom ñaar ñoo war a bëree promoteurs yi suñu bëggee làmb euh, nañ tëgg combat boobu Siteu rek li ma koy wax mooy bu mu fi nekkati toog télévision di wax prix am na ko ko waxal bu mu waxati bu mu waxati ci waxi prix du moom mooy discuter affaire prix ñi koy waxal prix ñi ngi fi moom bu mu ko waxati ñëpp xam nañ li muy jar làmb ji moom moo fi gën a cher te loolu léegi moo xam na ko xam na ni moo gën a cher ci làmb yi lu muy def ci làmb kenn du ko def public bu muy drainer ci làmb mindeef du ko drainer ci làmb donc ku bëgg combat Siteu da koy fay boo ko fayee mu ñëw indi la li nga ko joxoon doo ci perte loolu moom c'est très sûr. ko jox mu delloo la lu ko raw. mais amateurs yi bëgg nañ ko Siteu bu bàkkoo am na ñi xam ni bàkku Siteu la ñuy xaar bu bàkkoo ba pare ñi ñibbi am na ñi xam ne bëre ba la ñuy xaar jom jàng fi foot bank foofu la jàng fi jërëjëf ak lu ñuy xaar ci moom sentel gaynde daaru sentel sentel na ko bëgg na koo fàq bu bañ sentel gaynde daaru sentel am koy bëgg a génnee da koo bëgg a puus mu génn pour mu am avertissement da koo bëgg puus e eh, xëj na ko trois def na trois bi na ko waay lay gaynde daaru waay xale yaa ngay bëree sentel gaynde daaru bëgg na koo bëtt mu bañ fàq na ko mu ñëw daan na ko daan na ko sentel daan na gaynde daaru daan na ko jëli bi rëy na dafa bëre dafa bëre laa ilaha illallah dafa mën a bëre dafa mën a bëre ñeeg action soko action laa bëre ñoom commencé jàpp ku ne billahi benn jour ñoo nga suñu kër ma ne la maa talfaas ndoom bëre ngay gis bëre wallahi booy ku ma si bëgg a daan ku ne su ma bëggee daan du ma yàgg ak yow action laa la daane man daanaan laa ba fan nga jëm fan nga jëm fu ma na man dafa taw rek ama aris te jakarta Papa Yoro bi laa yéeg damay daw rek damay daw rek bëri nañ bari mbay pour A boo mi daa pour B pour ñoom pour ñoom Papa Bari Bari na ma si boole anam bari mbay pour A ñoom Papa Bari Bari bi boole ma si. maa lay fay. noo leen waajalee sax. ah niñ ko daan waajee rek mu ñëw def li mu war a def rek ñu dem ñibbi Grand Yoff. noonu li ngeen ëmb fii lan la. fii dara. koo leen fi denc ci. denc ñu fi kenn. lii gis nga luy saxaar noo ciy dencee nit li ay yëfu làmb la rek jënduñu fi kenn waaw. du turu loolu yàlla tere du yëfu nit ñun du yëfu nit. làmb laaj na non mais am na loo xam yëpp rek. Zarko sportif la. làmb li njëkk mooy sport sport. xaw ko xaw Zarko. déedéet déedéet. taxaw la Zarko la rek. yow sama la naamu. sam nattu waaw. noo ko gisee. Zarko xam nga Zarko euh, soo ko comprendre lul mënu leen nekk il faut nga comprendre ko waaw comprendre ko du tax nga far moom boo ko waree dóor da nga koy duma mais danga nga koy comprendre sinon doo nekk ak moom. jërëjëf. waaw noo gisee làmb tey. yaakaar naa ne bariwul coow de. bareegul coow. ah nuroogul luy bari coow lool de. ndax tey dispositif bi ñu indi ragal naan du bari coow. per per nag des fois day indi dispositif boo xam si tamit après da leen doole de. ñun dispositif du ñu ëpp doole. non si. kañ par exemple. non bari na. ëpp doole. waaw ay ndaanaa na ko seq. mi ngi mel ni yow làmb lu mu rëy boo koy reporté yéen waa leeral woo du leen ëpp doole. waaw mais noo gisee leeral ci la. non da ngeen a garaaw. ah waaw. non da ngeen a garaaw et puis ñëw andi beneen touche bu bees waaw te loolu moo am solo doo ëppal doo def fi dof doo def yenn cëmbal cëmbal da ngay jaar ci yoon. jërëjëf waaw. foo ay. booy nga nag li yee yàq sa affaire. Ah, jërëjëf. kon nu may indee sama bopp rek laa ko indee. waa parce que moom maanaam champion la ko waa jàmbaar même bu dara même bu dul dara ko waa tamit ku ñu ndaanaan la dëgg la yàgg na si làmb def na lu ne si làmb. mais combat yi dafa nekk combat boo xam ne ñun daam fu mu ñu mën a yóbbu si làmb waaye di ñaan yàlla suturaal ñu si kattanam ak baaxam si doole sëñ Fallou sa si doole sëñ Fallou yàlla nañu yàlla suturaal mais ñu na alxuraanu karim yaa ngi ci bis bu rëy waaw man sama bis bi maanaam yeeg yeegaguma si quoi waaw maa ama ma si wax waaw su yaa ngi rax waaw sama bisu rax moom fi indi waaw di ko ñaanal gaan yàlla mais loolu dina ci waxtaan sëñ Fallou waaw yàlla baax mais booy yi nga àndal dañuy daw rek kii déranger la booy daw booy caal dox nañ suñ combat ma fiyaa tàng ñangi la waaw dañuy daw rek amuñu arrêt ma fiyaa tàng ñangi waaw aku gugu bi rek amul arrêt waaw foo ñu seetlu ñu ñu seetlu ñu ngi foofu mbooli mbooli bi day wax ji yëpp a daan la waaw xale bi muy bëreel gudd rëyul te bi mu ñëwee ci làmb yàggul mu dem ba kilifaam jox ko sens muy Tafa Gueye loolu respect la ci xale bi waaye respect ci làmb tey naka la war a bëre waaw loolu moo yoon xam nga làmb dabante la Moussa Gueye numéro 2 li Bombardier def ñoom ñaar dama dama dama ci kontaan xool xale yi xam ne am nañ valeur ci làmb ji nga may leen sens ou ñu daan la dem wala nga daan leen ñu dëpp xaalaat seen i morom rek loolu rek moo fi nekk Tapha Gueye 2 nag kenn du ko jàngal bëre mën na li mi man ba pare nguur si nag bu yoxo bu dof dof la ba Moussa Gueye yoxoosu ko ñu ñibbi ñun ñëpp ay mais kii itam Moussa Gueye man du ma ko wax dara dama bëri ji laa koy wax rek aw ma lu ma koy wax te koo man ba pare te liñ yaakaar ne loolu lay bëri ci ci xale bi leneen day indi lu jaaxal stade bi xaw man na koy daan mais na jommal tey stade bi jërëjëf man maa la wax lii. dafa gisagoo booy bi de ki ngay lëngeer gisagoo ko de. dégg naa jël bi nga daan rëy na. waaw sant yàlla bu wax dañuy sant rek. waaw parce que lam moom noonu la rek soo wuti jéem suñu borom may la moom da sant rek xam ne loolu mooy làmb daal maa ngi sant yàlla bu baax sant ñu jàpp ci combat bi yëpp. di féliciter sama adversaire ko encouragé encouragé di ko wax ni loolu mooy làmb daal incha allah beneen soo amaatee combat bu dul sama mbokk wala waa partel yàlla may ko ndam incha fan nga jëm non non ñun moom ay xale lañ comme ay xale lañ nekk ci làmb nañ bëree xale yi rek waaw xale yan non déedéet jaru ma ne fii lim parce que fii koo fi lim rek mu jàpp na nga nekk ci moom wala lool mais ñi ñu war a bëreel moom gars yi xam nañ ko waaw ana waa Njoko bëgg nañ waaw lool lool dem Alaaji Maama Alaaji Maama woo na ma waxtaan nañ xam nga bëgg na trop jox na la dara alaaj maamu kooku kooku lépp moom bu dul làmb sax da ciy jàpp. maa ngi nii rek nekk si wàccaay bi nekk samay entraînement mu metti trop di ñaan gars yi nañ ñu baal ma ñu ñu bëri ndax ñoo ay xale lañ yaakaaruñu leen lu dul làmb lamb rek lañ yaakaar fal nañ ñu jàppale rek bàyyi ñu ñu bëri quoi parce que il est jot na quoi te bis waa amee temps nga ma plateau ma toog ñu souligner si loolu parce itewoo naa bëre quoi ndax damaa bokk si espoir bu parcelles yi. te diggante ak àdduna tey lan la ba ñu tuddee la mel nii tuddee la suma mouvement bi ma créé muy mouvement Sénégal nouveau ndaw yee ko tax a jug tey li ma leen bëggoon wax mooy ndaw yi am nañ yaay tey man maay seen yaay kon nag looloo waral tey ma teg fi suma tànk yi nii. tey Rose ñu tuddee la bis muy drapeau dox ci diggante Moustapha Gueye ak euh, sa ñaari doom di bëre Moustapha Gueye ak Laurent. wallaay suma ñaari doom yu baax ma am ci mbégte bu rëy tey ndax euh, comme ni ma leen ko waxee rek man jeunesse bee ma soxal jeunesse bee tax ma jóg kon nag tey mbégte bu rëy am tey teew. lii yëfam la lii yëfam la ndax lii da ciy foo bu ko neexee football bu ko neexee góolu te Zarko neuf la sax day dugal waaye tey neuf bi maa dina dugal. Zarko tey di dugal ay waay Zarko oh mu ngi fo waaye mais Zarko onon bandiraɓe men haalpula salmini man a juurama no feewi eh, aɗa yaam ko jiiɗa ko jiiɗa ko jiiɗa eh, a yiyani an an a yiyani haydara oɗo ɓingel eh, mbadda aɓe selli mbaɗe kutte mawɗum kay meɗen hen meɗen hen mbaɗe mbaɗe jeen jeen jeen wax ma tukulóor yu ma dégg wax ma tukulóor yu ma dégg waxal ak sa mbokk jéen du ma wax wan li ma koy def jéen comme yéen moomi xay dara mi xaal daamo mi waral ma dooni jooni jooni ma njaay adina incha allah Balla 3 bébé rek rek mbokk yi Mohamed Zarko rek eh, eh, door nañ ko door na mu daanu takk na ko jàppante nañu Bébé Reug Reug a ngi door Balla 3 Bébé Reug Reug a ngi door Bébé Reug Reug a ngi door pour mu siggi Bébé Reug Reug a ngi door pour mu siggi eh arbitre nee amul arbitre nee na pare arbitre lu ma dafa diis fàq na ko bëgg na koo dëpp cama xal ba cama xal ba Bébé Reug Reug Balla 3 la ilaha illallah ba ñoo ngi bare Bébé Reug Reug Balla 3 door Bébé Reug Reug a ngay door mu ngi door ay arbitre bal la 3 bal la 3 Bébé Reug Reug Bébé Reug Reug yaa ngi jaaxaane mboot mboot mboot mboot jël la amagul daan na ko daan na ko waaye Zarko fi mu dugg tàng na de sarko nekk noonu ci biir mbalaan mi day suuru mu ngi ci suuru gu metti nag Zarko day suuru yow suma xarit nga Zarko mu ngi wax ak chef bi xawma lu ñuy wax mais waxtaan jooju daal ñor na ma trop. làmb ji jàppale promoteur bi ndaxte yombul. waaye moom nag yàgg na def lu mel nii ndaxte yàgg na jàppale ay jeunes ca Kaolack dana doon def yu demee nii di parrainer ay làmb parrainer ay handball parrainer ay football ndax tey suma mbokk Kaolack waa Kaolack la donc euh, xam naa ko loolu daal vraiment man xam naa lu baax yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na yàlla fay leen yéen tamit la presse parce que foofu lamb yegg yéen a ko fa yegal mais aussi ñu leen gërëm leen sant di ref lu vraiment accompagnement bi jërëjëf. Diamaguène Franc Mbeur jàppante nañ jàppante nañ doomu Diamaguène daan na ko doomu Diamaguène daan na Franc doomu Diamaguène daan daan na ko jël bi gaaw na Mohamed Kaay Mohamed. Mohamed eh, eh, waxal waxal waxal. daal mi su ma jugee ma daal mi oh. ñii quoi. billaay walaay taalaay. wala ñuy maanaam dañu seetlu say combat vite fait bien fait tey nga am champion yàgg bëre ci lamb arène nationale yaa fi njëkk a bëre ak mbër bi nga daan tey. waaw bilaay lamb noonu la ko waa yàlla baax na ko waa seet si ma ñu waxtaan. wax nga ko. tàng ñàng bi lan la. waaw noonu la demee tàng ñàng baa ngi. waa ñun ñooy lamb ko waa. waaw ñeme nga xale bi de. waaye bis dafa yàgg. dafa war a teel a ñëw dafa yàgg trop. Fallou barki alxuraanu karim. Pogola mi dossier. da nga Pogola moo mën bu toola wax. yàlla nepp na bu bis baa dinaa ko ëpp doole ñaari Sénégal gépp dañ ne Pokola moo la mën. waaw sénégalais nañ jël may naa leen loolu. Fallou waaw bu ma simeekoo bu ma daagoo fii. waaw kenn du kenn du waxaat loolu baat boobu di nga ko gëj a. bu ma simeekoo fii bu ma daagoo baat boobu di nga ko gëj a dégg. lu ko góor lu ko góor musul def ay liis. lu ko góor musul def la ko liis Ndiakho nar a def. liis Ndiakho li nga wax lay. waaw sëñ Fallou rek ñun ñooy làmb. waaw làmb ñun la soxla ñun ñooy làmb. liis. waaye man damaa dof. moo ngi war fu nekk di wax nag moo ngi wax rek.

parce que damay bëre koo xam ne dama koo mën mais sénégalais mun ñoo xam loolu mun ñoo nanguñu maa ko mën waaw jour combat bi waaw bu ñu bëree ba pare waaw ñi doon wax rek laay dellu ñu waxaat quoi sëñ Fallou ñuy dem ak suñu ngor mu métti trop barki Alxuraan ba sëriñ ñu doon ñaanal ñoo dem ba ñuy jëndal ay sarax ñun dafay ñu leen dara di yëkkati seen alal diñ ko jox borom daaru moo ngi nii ñii ñoo ñu jëndal sarax yëpp barki Alxuraan jël bi nii lañ ma waxee woon ne ma booy bi dina door booy ba mu sonn wala booy bu songee mu def kat appui barke alxuraan. oh Fallou Mar. kilifa gi maa lay nuyu. bu ñu waxtaanee ci làmb dèjà jàppale nga xale bi ba mu am ndam ci yàlla nga ko jëlee nga jàppale xale ba mu am ndam sa xale bi lan la ba yow ngay sëriñ ñu war la fay mais yaa yëkkati sa dërëm lan nga ñuy wax sa digganteeg moom. waaw ñoom danoo wéetoon si combat borom jàmm gën dafa tegale ay defar tey mu métti ñun dañ siy liggéey sax xam ne kii amul jàppale mu mu nekk man nag du ma jàppale ku yaruwut ku am yar dama koo gis si moom benn yoon lan toog ñaareel ba signature la mais dama gis si moom respect ak yar. sita Balla Gaye foo leen ci toll. waaw lan mooy fu ci toll comme. jot ngeen avance. non non non bari na ci combat. waaw waaw xam nga ma xamal la benn affaire. combat boobu ñoragul. lu tax non dafa ñoragul. amateur yi ko waaye Siteu ndaanaan la champion la def na fu waaye Sa Thiès da ko daan guy gi daan ko barki Demba Ndiaye la rek daan ko Siteu ndaanaan la champion suy bëreeg Balla xaalis moo leen du boole waaye du palmarès. Malick a ngi noonu di wax ak ñoom li làmb nangu mbokk ak li làmb bañ dafa génn numéro 2 tànk la jiital. Laurent nee na woon si tànk yi la jëm dama ko koy sexal waaye Tafa Gueye ay bu ma ko sexalee. Laurent Ndiago Tafa Gueye numéro 2. Laurent Ndiago Tafa bi génn seen diggante dama koy song. Laurent Ndiago Tafa Gueye numéro 2. Laurent Ndiago Tafa Gueye numéro 2 Laurent Ndiago moo ñëwoon ginnaaw. Laurent Ndiago Tafa Gueye numéro 2 Tafa Gueye numéro Tafa Gueye 2 Laurent Ndiago Tafa Gueye numéro 2 combat spécial bi drapeau Rosalie Tafa Tafa fatt na fépp eh waay Samba Tafa Gueye fatal ma foofu Tafa Gueye numéro 2 Laurent Ndiago Tafa Gueye méb na Laurent Ndiago jël taam Tafa Gueye Laurent Ndiago Tapha Gueye numéro 2 na suuf Tapha Gueye remise na Tapha Gueye Tapha door na ko Laurent Ndiago rëpp door door door Laurent Ndiago Tapha Gueye numéro 2 Laurent Ndiago na ko Tapha Gueye Laurent Ndiago eh na ko oh nii la koy naxee na ko oh da koo nax da koo na ko. vaar vaar vaar vaar da nax jëlal ma vaar ba oh da nax oh wax arbitre lu ñu wax Tapha Gueye daan na ko jële ma Zarko jële ma Zarko Jova ndeysaan Ibulaay ndeysaan Ibulaay production jërëjëfati ndeysaan lii doy na waar Ibulaay oh lamba gi nii taaru lamb buñ ko yàq ndeysaan oh waay Ibulaay waay Anta Babacar Ngom Anta Babacar Ngom eh future présidente Anta Babacar Ngom maa ngi lay nuyu lamba gi ndeysaan bañ ak li lamb nangu ndeysaan ndeysaan at bi baa ngi wax ak Cheikh Diouf Kayre di nga ki nga xam te ne moom mooy Zarko mi ngi laan naan course le bi ma leen di boole ma leen di tàkkale mbokk yi Mathia mbokk yi Mathia moom mooy arbitre mi ngi ay juge laaj na Cheikh Diouf laaj na Zarko ndeysaan mi ngi wax ak Diène na ki te ne moom mooy Zarko mi ngi waxaat ak ñoom Diène de Diène def na di sa arbitre sifflé na il fait 20h31 Diène Kaïré mbokk ci Modou Anta Zargo jóge ci ki nga xamante ni mbokk yi moom dafa dugg duggaat mu nekk combat boo xam te ne ñëpp ko doon xaar journée Ibou Laye production ndeysaan Zargo mbokk yi moo féete à gauche Diène Diouf Kaïré moo féete à boo xamante ni tey ku ci daan am fu la yóbbu waaye ci kaw Zargo bu dee dafa daan. dafa am ki nga xam ni contrat da ko ki nga xam te ne moom mooy ñaabu ndaw waaye mbokk yi Diène Diouf Kayne bu dafa daan combat dina am foo xamante ni dina ko fa mu nekk combat boo xamante ni ay ay technicien lañ combat boo xamante ni ñoom ñaar ñëpp ay bërekat lañ ñii nag ñi ngi naan suñu songoowee ci tànk lay jeexee mais nekk na combat boo xamante ni ñoom ñaar ñëpp xas-xas doon nañ bokk internautes yi le tigre de Dakar di Diène Kayne nekk à Zarko nekk à gauche ñaari xale yi ji ci digg géew bi dara xewagul mbokki internet yi ñi ngi lewtoo ñi ngi lewtoo ñoom ñaar Zarko Diène Kairé Zarko Diène Kairé ndeysaan Zarko mi ngi def ay déplacement l'enfant chéri de Grand Yoff ndeysaan l'enfant chéri de Médina di nekk Diène Kairé combat boo xam ne ah Diène gëdd na ko Zarko Diène Kairé ndeysaan Zarko day échanger tànk yi mais Diène Kairé mi ngi def ay déplacement Zarko Diène Kairé Zarko Diène Kairé di féliciter ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci bëre ñi ci daan ak ñi ci daanu mais Laurent Ndiago ñu ngi koy di ko wax lamb noonu la le meilleur reste à doo bëre naa ak ñëpp ci lamb waaye mbokk lu xew lu xew Zarko jër gaynde lu xew Macha mi nga wax ak ñoom arbitre sifflé waat na mënul ñàkk combat la boo xam te ne ñoom ñaar ñëpp ko bëgg Zarko Diène Diouf Kairé Diène mbokk moo féete à droite ndeysaan Zarko moo féete à Zarko Diène Kairé mais Zarko échange yi muy def man moom ma caaxal Diène Kairé waxoon na dina ko may une minute su ñëwul mu dem. en tout cas ñoom ñaar ñëpp a ngi def ay déplacement bisu mag la te bisu mag kenn du ko fowee combat bi daf leen a jaral ñoom ñaar communiqué nañ ci te ñi ko bëggoon bari na waaye mbokk yi bu leen faat ah jël na tànk bi Zarko Diène Kaïré Zarko Diène Kaïré ñi ngi bëre ci suuf Zarko Diène Kaïré takk na ko Diène Kaïré Zarko ñi ngi bëre la ilaha illallah Zarko Diène Kaïré Zarko Diène Gaynde ñu ngi bëre ndeysaan ñi ngi teewoon te ñoom ñaar Zarko Diène Gaynde Zarko Diène Gaynde ñi ngi bëre ñoom ñaar munu ñàkk ay bërekat lañ Zarko Diène Gaynde lu xew Diène da koo bëgg a kal mais Zarko nanguwul Zarko Diène Gaynde oh ñi ngi bëre Zarko mi ngi wax kan lay waxal Zarko mi ngi naan ko defal ndànk Zarko Diène Gaynde tàmm na ko Zarko tàmm na buy bëree di wax Zarko Diène Kaïré Zarko Diène Kaïré ñi ngi bëree Zarko Diène Kaïré Zarko Diène Kaïré Diène taxaw jàpp na mais Zarko jàppul Zarko Diène Kaïré Zarko Diène Kaïré oh Zarko dafa diis da koo bëggoon a songale Diène da koo bëggoon a songale Zarko Diène Kaïré Zarko Diène Kairé lay la xëy la la oh Zarko daan na Diène Kairé oh Zarko daan na ko Zarko da koo cabaxal wali